إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله mbokk jullit yi suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne dañoo indi ci kaw suuf indi wuñu lu dul ngir yee ñu jaamu ko te yow jullit xamal ni la gën a màgg la ngay sàkku ci kaw suuf ngallawaay bu ca dara jiitu nooy def ba am sa ngërëmal boroom su la sa boroom gërëmee day sa jaar-jaaru àdduna réussir na amma loo mënoon a dajale ci nguur ak alal waaye bi ngay faatu amoo sa ngërëmal boroom xamal ne échec nga àdduna ak àllaaxira suñu boroom boobu nag danañu ubbi léeg-léeg ay buntam ci ay place yoo xam ne ca la ngërëmam di gën a gaawe bokk na ci loolu place yu mel ni Makka ak Madina naka noonu it lañuy ubbil ay waxtoom yoo xam ne ca la ngërëmam di gën a gaawe bokk na ci loole lu mel ne weeru koor ak fukki fan yi nga xam ne ñoo tëj weeru koor waaye ngallaawaay mbokk julit xamal ne it bokk na ci fukki fan yi nga xam ni moo ubbi weeru tabaski bii ñuy séentu samedi wala wala dimanche loolu ku nekk ci ñun war a góorgóorlu fàttali ko waat waxi borom bi subhanahu waxu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ci lu ibnu abbas nettali yonent bi ne woon na sahaaba ya xam leen ni day amul benn bis ci at mi doomu aadama man caa defal yàlla jëf ju mu gërëm mu tol ne jëf bañ ko defaloon ci fukki fan yi loolee ba ba mu ko waxee sahaaba yi xaw a yéemu waaw ki nga xam ne nag daa génn jihaad fi sabilillah ci yeneen bis yu bokkul ak fukki fan yi ndax nit ki mën naa def benn jëf bu tuuti rek mu gën a màgg jihaatam boobu ñu ne ko wax yu mu yàlla yónni même jihaad fi sabilillah mu ne même waajee dem di jihaad fi sabilillah la muy def jëf bi gën a néew bu doomu aadama bi def ci fukki fan yi julli la koor la sarax la lu mu mën a doon moo gën a màgg ci yàlla jihaatam boobu xanaa lu dul koo xam ne ba muy jihaat daa dem yóbbaale alalam alalam des fa bakkanam des fa waaye bu dul kii amul kenn ko mën a defal yàlla benn jëf bu mu gërëm ni mu koy gërëmee ci fukki fan yu mujj yi mbokk lii xadis bu màgg la boo xam ne ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu ca lan muy jur lu baax ngiree mu profitoo ca ca xam ne doomu aadama bi farlu mën naa dab ñu ko rawoon lool ci tuyaaba yu dul jeex ci jëf yoo xam ne jëf yu gàtt lay doon waaye nag mu dëppoo ci jamono joo xam ne yàlla day ful ay jëf abdullah ibnu omar nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa nañu wax ni xam leen ne amul yenn bis yu gën a màgg fukki fan yi nga xam ne ñoo ubbi tabaski amul yenn bis yu yàlla gën a sopp ñu defal ko ca lu baax ci mel ne fukki fan yi ubbi tabaski ngal la waay maa ngi leen di dénk ngeen baril ci di wax laa ilaha illa allah baril ci di wax allahu akbar baril ci di wax alhamdulillah loolee kon buñ lay wax jëf bu baax nga xam ne lu mu néew néew moo gën a màgg jëf bu baax ak lu mu rëy rëy su dee dëppawul ak fukki fan yi bokk na ca jëf yu baax ya lii nga xam ne mooy zikrullah góor man ko jigéen man ko malaat ba tëdd ci lalu hôpitalam man ko képp man ko te mooy baril di wax la nga xam ne mooy azkar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar fukki guddi yi wala fukki fan yi la suñu borom di wax ni wal fajri wa layaalin ashir mi ngi gën ci fajar di gën ca fukki guddi ya loole mu fassiruuna ya lañ ko firi moom mooy fukki guddi ya nga mooy fukki fan ya nga xam ne ñoom ñoo ubbi la nga xam ne nii moom mooy wéeru tabaski lenn ci borom xam-xam yi dañuy wax ne ay guddeem sax moo gën guddi ramadan donte ne ne bokk na lu gën a digg doomu mooy fukki guddi yi mujj ci weeru koor mooy guddi yi gën ci at mi waaye fukki bëccëg yu ubbi weeru tabaski mooy bëccëg yi gën ci at mi mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala ci loolu lay wax ne ubbil naa leen ay bis yoo xam ne day nekk ay bis yu ñu xam ngeen ci war di tudd seen boroom di ko jaarale it ci bayuma yi nga xam ne dama leen koo may ngeen war koo rendi booleeg di ci màggal seen boroom loolee mbokk da ngay gis ne borom xam-xam yi la ñuy firi loolee borom bi subhanahu wa taala di wax naan fi ayaamin maalumaat loolu mooy fukki fan yu ubbi tabaski loolu it suñ borom yàlla dëxañ ci benn bis bis boobee di yowmu arafa bis boobee nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku ko woor yàlla dana la baal bakkaaru ñaari at bu doonte ne fukki fukki fan yooyee benn ngëneel nekku ci lu dul yow mu arafa comme fukki fan yi mujj ci weeru koor nga xam ne la tax doomu aadama yi jullit ñi di ko taxaw mooy ngir dëppoog laylatul qadr waaye bu doon arafa kese nekk ci fukki fan ya jaroon a màggal jaroon a gëstu falilahi alhamdu nag suñu borom xamal nañu arafa kañ lay tombeel te mooy juróom-ñeenteelu fan ba ci zulhijja incha allah bu yàlla yombalee ci xutba bii di ñëw daañ gën a wax lu gën a jëm ci ngeneelu arafa boobu mbokk julit kon lii mooy la nga xamee ne nii wares na góorgóorlu jëm koo teeru teeru boo xamee ne nii la ci jiitu xamal ne bokk ni ci jaamu yàlla yi gën a bëgg ci ñun jaamu yàlla yi yàlla gën a bëgg ci ñun moo ñu daal di tuub delluwaat ci moom yow julit xamal ni dara gënta màgg ak tuub tuub mooy wan gannaaw lépp lu yàlla gërëmul jublu ci yàlla ngiree yàlla subhanahu wa taala jéggal la ci yërëm la nga la waay nañ ci profito balaa fukki fan yii di ñëw gannaaw ba itamit fukki fan yi xamal ne moom moo ëmb jaamu yàlla gu màgg googu nekk juróomeelu ponk ci ponk lislaam muy alxajji wal umara doonte ne dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu borom yàlla subhanahu wa taala dogal na atum ren mi lam santoon bay ibrahim na ko wa azin fi nnaasi bilhajj yaatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq ibrahima wooteel nit ñi dañu dikkal jóge ca gox ya gën a sori atum ren mi moom bokku ci comme nañ ko yàlla xañe woon atum daaw ngir natt bi yàlla wàcce la nga xam ne ñooy ña jiite Arabie saoudite la ñu décidé mooy ku aj gi fekkul Arabie saoudite moom doo mën a aj si waaye nga la waay maa ngi ñaax yow mi nga xam ne danga waajoon a aji ngëree ne sakku ngërëmal borom bi jàll wa ala ay yow mi naroon a aji ajug naafila aji woon nga farate ba pare ajug naafila nga bëggoon cay waay 3 millions yooyee boo xooloon jamono ji borom kër yu bari seen bopp ubu nu ñuy def ba am tabaski nu ñuy def ba taxawu seen njaboot 3 millions yooyu nga tasaaru ko seen biir ñi ngi njortu ci yàlla ne man nga am ngërëm gu gën a kawe ngërëmal aj mag yow mi waajoon même ajug farata bu doon dixième ba rek nga jël 300000 kese nga jël ca 3 millions ya daal di koy tasaare say jegeñaale say dëkkandoo fuqara aw yi ak masakine yi wallahi man nga caa am ngërëm lu gën a màgg la nga xam ne sax muy aj boobe ngeen bàyyi xel loolu mbokk jullit bu baax xam leen ni bokk na it la gën a màgg ci loo xam ne nii dañ ko cay taxawee ci fukki fan yi mooy lu waay man mu wóor ko ca soo wóoroon juróom-ñeente ya baax na soo ca wóoroon ñetti fan baax na waaye la nga xam ne moom munta war a ñàkk cib julit góor ak jigéen mooy bisu juróom-ñeenteel ba moom nga woor ko ngalla waay mbokk julit góorgóorlu leen ci li ñu yàlla sant suñu borom yàlla nee na ñu tudd ko ci lu bëree bari ci bis yu ñu xam yooyee loolee moo taxoon la yonent bi sunnaa loon bàyyee ko sahaaba ya mooy bis yoo xam ne bisu zikrullah la waaye nag mooy zikru màggal yàlla jalla wa ala looloo tax kii di abdullah abdullah ibnu omar daana ànd ak abi hurayra radiallahu anhu bu weeru tabaski tere teroo ñuy génn dem ca marché bi di yëkkati seen baat ca la nga xam ne moom mooy ak takbir ngiree nit ñi dégg ko ba ànd ak ñoom ci takbir yooyee loolee ñu yoonal ko xatta góor yoonal nañ ñu yëkkati baatam zikrullah la ca gën mooy lu ñu yelu amma bu dee la nga xamee ne nii mooy ayaamul maalumaat ak ayaamul maadudaat te mooy fan ya tegu ca tabaski yoonal nañ góor yëkkati kàddoom ci zikrullah ci takbir ak tahlil bu dee jigéen moom dañoo sopp mu yelu ko la gën ca lañ cay wax am na ay siixa waaye bokk na la ca gën a siiw mooy foo toll ngay baril di wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd même bu doon yooyee xaw na laa lëntit nga la waay foo toll bari lal laa ilaha illa allah bari lal allahu akbar bari lal alhamdulillah ca la nga xamee ne mooy fukki fan yi amma buñ demee nag ba fukki la fan ba ak la ca topp loolu it ñu gën a yokk zikriya ca mën na am insha allah mu ñëw ci xutba bii di ñëw mbokk julit sunu yonent alayhi salaam lii la ñuy digal nee na jëf boo def day ca la gënal yàlla nga def ko ci yeneen fan ay waay góorgóorlu leen ca la nga xamee ne nii mooy baril ay naafila saxalal rawa la nga xam ne mooy rawaatib ya yonent bi doon def bu dee daawoo ko def saxalal ma ñeenti rakka avant tisbaar ñaari rakka après tisbaar saxalal la nga xamee ne nii mooy ñaari rakka après timis ñaari rakka après gay ñaari rakka avant fajar saxalal la nga xam ne mooy shay shafa ak witre bu doon yaa nga ca ngalawaay dolli ca dolli loo mën a dolli ci ay julli te xamal ne doo sujuutal benn yàlla sujuutal yàlla benn sujuut lu dul yàlla yëkkati na la ci ay daraja ngalla waay fu ngeen toll ci fukki fan yi bari leen istixfaar amul lenn lu gën a màgg lu yàlla gën a bëgg lu mel ni istixfaar góorgóorlu leen ci def njëkk jëmale ci waay jur ya su dee ñu ngay dund su dee faatu nañu bari leen seeni ñaan génneel leen la nga xam ne mooy ay sarax ku mën a jokk say mbokk góorgóorlul ak a baaxoon ci at mi yépp waaye gën naa feddali ko ci fukki fan yi bari leen képp koo xam ne nii man ngeen koo jàppale ca la leen yàlla wërsëgal mu néew ko bari amul lenn luy gën a kontaan loo yàlla mooy jullit fexe ba bégal mbokkam jullitam rafetal leen jëm ci dëkkandoo yi rafetal leen jëm ci néew doole yi ay jërim lañu ak ku mën a doon nañu góor góorlu mbokk jullit ziyaarante digleente lu baax terente lu ban bari lool di julli ci suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag mbokk jullit xam leen ni suñ demee ba fukki lu fan boobee amul lenn lu yàlla gën a bëgg ci ñu daal di koy tuural deret ca loolu mooy tabaski fukki lu fan boobee sax dañu araamal ku ko woor yonent bi alayhi salaatu wasalaam tabaski na am na benn at ñaari kuuy la indi benn ba mu rey ko rendi ko daa ji ne ay yàlla kii jagleel naa ko muhammad ak njabootu muhammad rendi beneen ne ay borom bi kii jagleel naa ko képp koo xam ne amul tabaski sama xeet bi ila yawmi din ngalawaay roy leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu te mooy fas yéene rendi tabaski koo xam ne nii dogu na nag pour rendi ko su yégee ne weer yi feeñ na bu mu laale ci dara ci ay weem bu mu laala ci dara ci ay karawam diir boobee nga toog jëm tabaski ga da ngay mel ne waa makka ya armal ca makka loole ak tuyaaba la ci bàyyi gi ngay bàyyi say we ak i karaw kon bu ci gu tey bii kum neex wattu jil kum neex daggal say we waaye foo yëge ne weer yu feeñ na gàttan ñul ci loolu ba baa ngay rendi sa xaru tabaski ba pare mbokk abi ayubal ansaar yi bokkoon na ci saxaaba yu guddoon fan dund gannaaw yonent bi lenn ci ndaw ñu laaj ko na ko waaw yéen seen jamono nu ngeen daan tabaski mu ne ñun de jamono yonent bi kër gu ne dañ fa daan rendi benn xar borom kër gi rendi ko yéene ko waa kër gi baba nag mu mujj nekk nii puukare bi ngeen gis su ko defee mbokk julit nañu xamee ne nii a tabaski la ca gën a am solo mooy ngërëmal yàlla jalla waala bul nekk ku nekk war a rey sa bopp nga gis yàq boo xam ne léeg-léeg da ci am soxna yi dañuy rey ñëpp xale yi dañuy rey ñëpp ne dañuy rey su dee ne njaboot ga nekk na lu yaatu bañ soxla rendi lu bëri loolee da ngay gis dara nekku ca waaye nag ngalawaay bu mu yegg mukk ci puuka réew ba lu bëri ci jigéen ñi ñoom jàpp nañ ne tabaski yi ñoo ko moom sama tabaski mi xa fas yéene caa génne tànku bàjjen ak tànku nangam mbokk tabaski loolu taxul woon mu jóg ñu bàyyi xel bu baax a baax tabaski boobee ñu def ko ca yàlla tax lan ca dépensé ca yàlla tax ngisal amu ca yàq amu ca yàlla gërëm na ko yow mi yaatal sa alal nga demoon jënd xarum trois cent mille sax ci jamono ji ñuy dund waxuñu da ngay yàq am maa nag suñu borom nee na ñi nga xam ne bu ñuy dépensé du ñu gàttanlu waaye nag du ñu nay li ñuy dégg léeg-léeg ay xari huit cent mille un million cinq cent mille bu dee yàlla rek a tax te nga caa jënd juróomi xar tasaare ko jox ko say mbokk ak dëkkandoo yu amul tabaski loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax tabaski boobee ñu rafetal ko màggal ko da ngay gis ni su dee ni yàlla dogal na sax jafe-jafe am ci ni mu daan amee ci yenn at juróom-ñaari borom kër bu ñu cotisé woon jënd benn nag ñoom juróom ñaar ñëpp am nañ tabaski ca yàlla amma xar moom benn kër rek la mën a yóbbaale ak kër ga nag bu doon cent personnes sax yóbbaale na leen su dee amuñu xar ñu wut bëy lii mbokk moom la ñu lislaam sant doonte ne yonent bi alayhi salaam it daanañu moytuloo bépp tabaski boo xam ne nii dafa ñaaw ci gisin mu ne moytu leen bépp tabaski boo xam ne daa patt ba ku ko gis xam ne daa patt kon gumba moom taxul ñuy wax moytu leen xar moo xam ne ku ko gis xam ne bii daa feebar moytu leen xar moo xamee ne nii dafa lafañ ba ku ko gis xam ne tànk baa nga lemu moytu leen xar moo xam ne daa loofa loof ba nekk deri kese yii moom ñeent yi moom du mat ci tabaski gannaaw ba nag am na yoo xam ne sib nañ ko ca waaye daal nu xar ma gën a mate loolee da ngay xam ne moo gënal yàlla jalla waala ca it nga gëm ni suñu borom yàlla nee na soxluwuma yàpp wi soxluwuma deret ji li ma soxla mooy taqwa minkum mooy ragal yàlla gi nga xam ne mu ngeen àndal kon bokk fukki fan yaa ngi nii suñu kanam yàlla na yàlla yeggee lañu ca ca jàmm donte ne nii am nañu kenn ci suñu mage jàkka ji moom day yàlla dogal ne fekkewu ko am na góor gu ñuy wax góor gi ngañ sàll ba ñu sampee jàkke ji ba lu yàggul dara ñëw na fii ànd ak ay sëtam ànd ak ñun julli juma biig ci morgue bi la fanaan léegi lañ ko fi jële yóbbu saalum yal na yàlla teeroo ko njëggal teeroo ko yërmande yal na yàlla defar ko ajjana muy nekk wàccu waayam yal na yàlla wërsëgal ñu dundal ñu ci gërëmam yal nañu yàlla dundal ci aafiya yal nañu yàlla dundal ci yërmandeem heure bu ñuy dajeeg moom yal nañu dajeeg moom fekk mi ngi ñu gërëm mu jéggal ñu yërëm ñu defal ñu ajjana muy suñu wàccuwaay allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin